ñu ne li nekk fi du pour ñun pour askan parce que askan wi moo ñu tax légui nak léegi askan wi buñu ko xolé ba paré buñu ñu ci parrainage bi ñun wutuñu 65000 parce que 65000 signatures 1 1%. la ñun entre 500000 ak 1 million de signatures, li ñuy wut parce que projet de société li ñuy proposé askan wi bu fekké né askan wi li ñu leen di proposer bëgg nañu ko bu boba li ñuy ko am 1 million de signatures. yi bu fekké né nak li fi né leen gënal bu boba duñu ko am et eh, nit nak, da ngay xam sa bop on peut pas être plus royaliste que le roi boy xéxal askan wi té askan wi li nga len di jox bëgguñu ko bu boba da ngay wat ci la nga nekkoon ñi jaay glace jaay glace ñi jambi carotte jambi carotte mécanicien yi wat ci sen atelier menuisier yi wat ci sen atelier et cetera et cetera donc li dal mom moy li am solo tay ji it ni nga waxé amna Euh, dem nañu ci marché am ñu fa nekkoon di yëngal waaye dama jàpp ne bu dee ni ñëpp liggéey Sénégal moom moo leen ñor war nañu ci ànd akub dal ak nité parce que ki moom Thiès bu moomoon Thiès du xañ ku dugg Thiès parce que seul les tonneaux vides font du bruit man bu ma nee la sama gox maa ko moom boo ñëwee dama lay bàyyi parce que xam naa ne ak loo fa yëngu-yëngu-yëngu mënoo faa am dara kon boy yëngu rek c'est parce que tout simplement da nga tiit waye comme Sénégal ñoko ko bokk war nañoo and ak dal civilisé bàyyi yàq bàyyi wax ju ñaaw yow xam nga né Thiès lañuy défé interview bi kon xam nga ne ñibbiwuma Dakar et puis ñun ñep ay sénégalais lañu muy dakar muy Thiès muy Fongolim bi muy fenen ak fenen ak fenen mais fep Sénégal la dafa am benn sénégalais bu mëna interdire benen sénégalais né ko do dugg fenn lolu amul donc soyons plus sérieux Idrissa Seck mo ëppoon doole fii. ñi fi nekk di lapp-lappee ka telli telli ki démb lañ leen xam te bu du toon nguur gi ñu nekk wala li ñu yor kus néew kenn du leen xam du ma tudd seen tur parce que man seen patron laa amal affaire macha